jotaayu xam-xam majaalisul ilmi ak ustaaz Abdallah Baba Dieng alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bokk jullit ñi ñu ngi ci jamonoy coronavirus yàlla subhaanahu wa taala ni fala uqsimu bima tubsiruun wa bima la tubsiruun mu ne ah kay. ni nit gis ci boppam. docteur yi dañuy wax ni pour ñu gis ko. il faut que ñu jëfandikoo jumtukaay boo xam ni dinañ ko multiplier lu ëpp millions yi koy mën a gis te xoolal ni mu lëmbe àdduna xoolal li mu nërmel ci ay nit li mu faat ci ay bakkan xoolal li mu freiné ci ay économie xoolal li mu tëj ci ay université xoolal li mu arrêté ci avion yu doon naaw ana jumaa yi ana école yi ana marché yi lépp ngir benn mbindeefu yàlla boo xam ne mënoo ko gis yàlla di faat ca Europe ca Amérique ca Afrique ñu am alal ak ñu ñàkk alal ñu xam ñu xamul ñu weex ñeeg ñu ñuul ñu xonq ñi xàmmewul imaam bi xàmmeewul président bi xàmmeewul xalifa général bi xàmmeewul oustaz bi xàmmeewul kenn ñëpp lay faat te kenn mënu ci dara nag ku dul borom bi subhaanahu wa taala moom dong ko fi mën a jël ana njabarkat yi daa wax naan ñoom ñoom ñooy ñoo yore maamal ana ñu leen wax naan ñoo yore kun fayakun ana saltige yi ana ana ñi jàppoon ni tey mën nañoo taxaw rek ci bàmmeel ñaan ko bu faj aajo yépp ana bàmmeel yooyu tey ana xabru yooyu tey amul kenn kuy dox ci kaw suuf koo xam ne ñeme naa taxaw ni maa koy faj su ko waxee léegi borom bi subhaanahu wa taala dina jëflanteeg moom loo xam ne nit ñi den ko den ko ci jéppi ñépp toog ku doon woote gi wilaaya yaa ngi ku doon woote xam-xam yaa ngi jaaxle kon jot na nag ñu delluwaat ci yàlla te xam ni mbir yépp ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo kenn ne ni ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu te xam ni moom dong moo ko fi mën a jëlee waaye nag ñuy góorgóorlu ci waa docteur wax bañ jaxasoo bi ak yu bare bëri yi nga xam ni ñu ngi koy santaan waaye daal fi ñu yeme tey suñ jotaay mooy nañu xam ni mbir yi ci loxo borom bi la nekk nekkul ci loxo keneen kon bu nuy ñaan na nañu ñaan yàlla bu nuy wakkir nañu wakkirlu ci yàlla nan xam ni yàlla dong ngit moo mën a saafara lii moo ko fi mën a jële keneen mënu ko fee jële du ab yonent du ab waliyu du ab imaam du ab sëriñ du ab du kenn du président de la république président yi sax ñoo gën a jëm yi du ab ministre du ab docteur bi gën a aay tey ci àdduna bi du kenn ku dul borom bi rabbul izzati wa jabarut kon nanu dellu ci moom fa tuubu ila rabbikum fa tuubu ila allahi subhanahu wa taala fa tuubu ila baari'ikum ayyuha almuslimuuna almu'minuun hada wa sallallahu صلى عليك الله يا خير الورى بعدد حبات الرمال وأثرا صلى عليك الله ما غيث هبا